ñaareelu xaaj bi ci juróom-ñaari xaaj yi gannaaw gi ibraam ak loot teqalikoo loot dem dëkki dëkk bu ñuy wax sodom ndaxte suuf sa doyetu leen woon ñoom ñaar yàlla may ibraam réewum kanaan mépp ba ay at jàlle ay nit ñëw songu dëkku sodom ñu jàpp nit ñu bare jàppale loot ak waa këram ñu nangu alalam yépp ibrahim dégg ko ànd ak ay gaayam dàqi mu nanguwaat lépp li ñu jëloon jotaale loot ak waa këram ak alalam melkisedek buuru salem di sëriñ bu gëm yàlla aji kawe ji dem gatandu ji Ibrahim barkeel ko Ibrahim jox ko ci alal ji mu nangu yépp fukk yu nekk benn léegi ma laaj leen juróom benn lan la Ibrahim def ni ab misaal ngir nun bi mu dajee ak Melkisedek sëriñu yàlla bu mag ba jox na ko benn ci fukk yu nekk ci li mu amoon kàddug yàlla nee na nun itam war nañu delloo yàlla benn ci fukk yu nekk ci sunu alal